woon ñenn ci ministre yi seq gouvernement bi ak ñi liggéey ak man ngir ñu saytu euh, li nga xam ne moo fi xew ginnaaw taw yi ñu gis fan yi ñu génn taw yi nag yàlla def na muy taw yu bare bare ndox ndox nag moom lañ doon ñaan suñu borom saa yu ñu dégmalee nawet ngir yàlla mun ñu may nawet bu barkeel waaye ci biir ndox moomu léeg-léeg day ànd ak fitna ànd ak tolof-tolof mooy li ñu gis fan yi da tax ñu gis ci ñu bare bare ñu ñàkk seeni alal seeni kër ba sax am juróom benn doomu aadama yi ci ñàkk seen bakkan ñi ay mur ñoo daanu ndax ndox mi faat leen ñi si des ma sax ab xale bu ndaw xam ne aussi si ndox mi la faatu euh, ñooñu lee suñu borom jëlee fii maa ngi jaale seeni mbokk di ñaan yàlla mu xare leen àjjana euh, di waxit mbokk yi ne dinañu taxaw suñu kem kattan ngir indil leen euh, taxawaayu nguur gi si jàppale leen ci nu ndox mi demee fi nga xam ne amul assainissement euh, fépp fu ñu jotoon def assainissement nag yàlla def na ndox mi am na lu taa waaye ak système bi ñu defaroon ndox mi dem na ci gox yooyu te programme boobu bu amuloon tey jii mën nañ ne moitié réew mi daanaka tey ci biir ndox lay nekk fii ci Ndakaaru rek ku ne xamoon na dëkk yu mel nu Grand Yoff fu meloon ni euh, Philippe Maguilen sengor fu meloon ni Dalifort ak euh, Medina Gounass bare na ay gox yoo xam ne euh, liggéey boobu ñu jot a def tax na ba naam bu dee ndox mi taana itam waaye ginnaaw gi dem na waaye nag ba tey am na gox yoo xam ne assainissement boobu yeggu fa boo gisee lii ñuy wax euh, déeg bu mbaaw ak bassin versant am mooy lu ko jëlee Kër Massar ba ba ngay yegg Camibas te jaar si Parcelles Assainies yu Kër Massar diggante unité un ba unité 20 wala Alaaji Pate nekk na gox yoo xam ne tam liggéey bi war nañ ko mottali ba waxtu wi may wax ak guddi ak bëccëg sapeur pompier yi ONAS ñu nga fa di liggéey ngir évacuer ndox mi euh, dooleel nañ leen joxaat nañ leen ay moyen ngir ñu yokk seen taxawaay muy ci Ndakaaru muy ci biir Sénégal yi ci biir loolu yëkkati nañu enveloppe bu bees bu buy toll ci fukki milliards ginnaaw biñ ma joxee seeni soxla li ñu soxla ngir xeex boobu ñu mën ko gañe euh, mooy fukki milliards yi ñett ñi moom dañ koy jagleel njaboot gi mu nekk ay ndimbal yoo xam ne njaboot yi am jafe-jafe ci inondation bi danañu jot euh, as koppar li ci des nekk ndimbal ci dund wala ay matelas walla lépp loo xam ne danañ ko solowoo mu mel ni aussi war nañ pomper ndox yi parce que bëgguñu ay jàngoro yu mel ni choléra wala xeetu jàngoro yu mel noonu wala bokk jàngoro yu am ci der ñu tuddee ko dermatose euh, yooyu tam war nañ ko xeex bokk na ci li ñu génnee ngir jàppale ko famille yi. maa ngi masawu coono suñu mbokk yi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci taw bi di waxit ni dinañu déjà ñu ngi leen di taxaw waaye maa ngi woo képp kuy. ndaw nguur gi nga jege population yi si sa gox moo xam élu la muy maire yi muy président conseil muy député yi muy képp koo xam ne aussi euh, wala conseiller économique walla conseiller au conseiller nga aussi bokk si communauté bi ñi nga xam ne di leen indil masawu coono ci tolof tolof yooyu la li ci des itam ñu xam ne nag euh, nawet moom dafa ànd ndox mu bëri wala ñàkkum ndox loolu dañ koy dañ ñaan yàlla mu bañ a am waaye ren ndox mu bari moo am ba tax na gàncax gi macha allah fi mu nekk nii am nañ si yaakaar pour ren waaye itam nañu gën a bàyyiwaat xel d'ailleurs at yi ñu génnoon gis ngeen ne la jotoon liggéey taxoon na ba ndox mi maanaam amuloon trop trop jafe-jafe waaye nag lii wàcc ci taw fan yi loo xam ne lu waroon wàcc ci ñetti weer wàcc ci benn bés kooku bu amee faaw mu am ay jafe-jafe te loolu dafa méngoo li ñu gis ci àdduna bi yëpp ndax li ñuy wax changement climatique mooy jaww ji àdduna bi tey ni ni nga xam ne noonu lay doxee tax na ba kenn mënatul saytu ba xam fii ak at mii di ñëw wala ñaari at yi di ñëw nan la climat bi war a mel lépp jaxasoo gis ngeen ne taw yi du Sénégal rek Sahel bi yëpp. dëkk yoo xam ne ay ay désert la woon mel na Niger mel na Tchad Soudan démb mu ngi ci ay ndox ñoo xam ne daawuñu am sax cent millimètres ndox ci ci at mi xëy rek ñu mu taw la ëpp deux cent wala trois cent millimètres d'eau kooku day indi jafe-jafe ci dëkk yu gën a mag gis nañu lu mel noonu kooku nag ci changement climatique lu bokk moo tax aussi kooku beneen mbir la ñu ngi ci liggéey ak waa àdduna bi yëpp ndax lu global la waaye daal nañu xam ne changement climatique bi tam amal nañ ko ay solution mooy di taxaw si di jàppale askan bi ci lépp loo xam ne euh, état bi war na ko def seen wet te incha allah kanam la jëm danañu leen saytu di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Voilà, c'était donc la déclaration du chef de